ok Elimane marché bi nga xam ne moo war a définir seen bés compétition di leen xaar suba yéen naka ngeen fas yéene duggee ci boobee marché ngir yaakaar ci am ci qualification. daanaka match bi mun nañu wax ne mooy suñu décider ndax buñ ko dóoree mën nañ te ñu ngi naan ñaan yomb ñaan yàlla génn ci ci ci jàmm daal. ban taxawaay ngeen fas yéene taxawee demain seen diggante ak RD Congo. Euh, comme ni ñu daan taxawee rek comme ni ñu daan taxawee ni dañuy taxawate rek té inshallah bu bu yalla su ko di ngeen gis leneen inshallah dinañ euh, def lepp lu ñu mën bu soobee yalla té dinañ jël ndam ni inshallah dinañ gis leneen lan lañu wara gis. <laughs> di ngeen gis leneen rek comme euh, sénégalais yi duñuy wax rek nan nay boy booy légui euh devant bi dañoo manqué dugal bi ak affaire yoy noonu mais bu soobee yalla suba inshallah di ngeen gis leneen. kon euh, noppi ba jeex ci biir rencontre. Mhm. lépp aju lépp jàmm pare nañ pour lépp pare nañ pour joxe suñu baqan pare nañ pour reyante pour ndax ndam li rek waaw may ko peuple sénégalais. ok temps bi taw bi est-ce que nekkul benn facteur bloquant si yéen. Euh, je pense pas ah pour xaw ma na mais man déranger wu ma xaw ma na